président jomaay def ndax ci loolu lañ ko doon xaar ndax Sénégal dafa am lu ñu baaxoo ndax suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi moom la ñu am gannaaw yàlla ndax euh, ñi fi jaar yëpp defe naa ci tànk yooyu la ñu aw kon moom tey bu ñëwee tax am taxawaay bu ko bu ñu def lu may rafetlu ko di ñaanal yàlla euh, mi nga xamante ni moom moo ko jox tey réew mi mu def ci continuité ndax l'état c'est de la continuité tey bu ñëwee dem seeti suñu kilifa yi te ni mu ko defee Touba def ko Tiwaawoon am nañu yaakaar dina ko def ci ñëpp kon donc du ñu mën lu may saluer ko rafetlu ko di ko ñaan rek mu apporter ndax yokkute lañu ñoom rupture la ñu woote yokkute te yokkute googu ñu ngi koy xaar ci ñoom ñoom nee nan dañuy ñëw pour defar réew mi jub jubal jubbanti mais loolu mu ngi njëkkee d'abord ci ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a yor réew mi tey président jomaay nekkatul Diomaayu benn parti dafa nekk le président de tous les Sénégalais kon ñëpp la war a déglu kon tey bu solee dàllam dem Touba di fa jaare di fa ziyaare sëñ Mountakha di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal mu ànd ak du ñu mën a def lu may rafetlu ko vraiment parce que euh, président yi fii romb yépp noonu la ñu def kon moom bu ko defee da koo war a def ah, di ko ñaanal yàlla yen bi oyof di xaar ci moom aussi mu li mu wax rek mu def ko mm-hmm. ay résultat moom la ñuy xaar moom la ñuy xaar